alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah mbokk jullit yi ñi ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala eh, àddina bi yëpp yàlla na nu mucc rawatina sunu réew mi ci musiba yi nga xam ni moo am muy feebar bi nga xam ni ñépp la boole sonal ñu tiit ci jàq ci yàlla mi ci am solution yàlla na ko def te mu génn fi ak jàmm def zéro mort eh, mbokk yi waaye bu mbir amee دفام لنو القرآن جانجلون نينو فاسألو أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون سنو جوم ميتي بغيس مير مو أم لني نجكا دف موي لاج نيتي سين خم خم ماتش لينك مبوك نيتي خم خم سين خم خم ماتش موي واكر دكتور وخنا نوكو موي كونسين أك كونسي ينو جوخ pour ñu def ko pour mucc ci jàngoro ji ñu koy ñaan nag jullit yépp ak nit ñépp kuy responsable nga respecté ko gis nañ ni nit ñi liñ nu njëkk a digal mooy ñu toog ci sunu kër yi bañ a génn bañ a demlente bañ a dikkalente ak lu ko mën a sabab nag mbokk yi loolu képp koo xam ne defoo ko ne la wér ni wàcc nga yoonu diine wàcc nga yoonu xaqu sàmm sa àq sa àq morom bi ci jiitu nan toog sunu kër yi bañ a génn beneen bi ci topp ñu yokk cet yi te mbokk yi set dafa bokk ci jullit anadaafa min al iman ak nite rek dafa laaj ak cet ñuy raxasu ak saabu suñu raxasoo saabu ba noppi fomp gel yi nga xam ni yi ci gën ñu di ko jël di ko laal mbokk yi yemuma rek ci école yi taxaw nan daara yi taxaw nan waaye képp koo xam ne da nga nekk nit ñu di recevoir ay visite dakkal ko ba yi yépp passé mbokk yi ñu fàggandiku semaine ñaari semaine ñetti semaine yëf yi jeex kenn ku ne dellu ci activité loolu farata la jàkka yi wax mbokk yi lépp luy yokk musiba sharia digalul kenn mu imposer ko nit wala mu digal ko ko wala mu def ko su ko defee màggal yeeg gàmmo yeeg yëpp taxaw dëj yeeg ngénte yeeg yëpp taxaw ba nu génn ci semaine yu diis yu naqari yu metti yile su ko defee inchaa allahu kenn ku nekk dellu ci li mu nekkoon lii nag may wax képp koo xam ne sàmm ko na la wóor ni lépp lu avancé ci feebar bi responsable nga ci moo xam kilifa diine nga moo xam responsable lu leneen nga loo mën a nekk rek na nga wax ñi la déggal saw ñoñ ñi topp ci yow ñi nga xam ni boo waxee ñu dégg nga wax leen ñu toog ci seen biir kër yi ba pare yokk cet gi ba noppi néewal laambisoo gi néewal dem leen dikk bi rawatina ñi dugg ci oto yi ak yépp rekk marché yi fu nekk ñi ngi ñaan jullit yépp ñu toog restez chez vous comme ni ñu ko digalee comme ñoom lii yépp ñoom seen xam-xam ci la màcc incha allahu su ko defee coronavirus jeex fi takk ñu ñëpp ñu delluwaat ci jàmm ak ci ndam sàmmaat leen war a sàmm kon mbokk yi ñu ngi jégglu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.